bank leen seen loxo euh, seen baaram lu toll ci juróom-benn fukki euh, candidat ak euh, juróom-benn ñoo fas yéene dagaan baatu askan wi kenn ku nekk ne bëgg naa doon président 2024 ana li tax ñu daw ci seen candidature kenn ku ne bëgg ca yëglu docteur Abdou Khadre Sanogo wax na ne ñu bari ci ñoom daanaka déggu nañu ci seen candidature waaye nag am nañu ci ñoo xamante ne mari rando la ña ca des yobbalema ma ña ca des yi tamit lañ ca séntu mooy bu ñu sax demul élection ñu mun leen a saay bu bu euh, keneen gagné ëllëg euh, ci bopp réew mi euh, réew mi la ñu desandi di Sénégal Walf Quotidien xeedu ñu dégtal libération Ousmane Sonko ay ñoñam yittewoon nañ ko lool ba tax na drapeau bu weex tàll la ñu jibal ci jamono ji ngir sàkku Ousmane Sonko mu génn ci jafe-jafe yamu ne delluwaat ci këram yéen kaabit Walf Quotidien mu ñuy dégtal yi tamit ndajeb inter conseil interministériel jëm ci wàllu ubbiteb l'école bi ci jamono joo xamante lu ëpp ñetti téeméeri école ndox mi euh, nangu na leen yéen kaabi di las ne lu tax nanguwul ànd ak euh, dogalu benn Bokk Yaakaar mi tànn amadu Ba ay kaabi di ñu dégtal kii di Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi àndul ci tànneef gi di mel euh, samp ndëndëm fas yéene dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle yu 2024 digganteem ak njiitu réew Macky Sall las dikkaat na ci mu ngi ñuy dégtal yi tamit ay kaddu njiitu réew mi Macky Sall soobu na ci campagne foofe ca États-Unis waxtaan nag ay militam xamal leen benn candidat rek am muy euh, candidat euh, di euh, bii di Amadou Ba mi doon candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar yenn a kaabi di l'évidence xëy duñu dektal lu ci li nga xamante ne mooy jàppante loxo bu doxee ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Euh, ba ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne yéen cabinet ñoom ñetti ñile bu ñu boolee seen doole mun na jural gàllankoor amadu Ba di candidat euh, bu euh, Benno yéen cabinet moo ñu ko yëggee l'évidence mu ngi ñu dégtal ñàkk neexoo goo xamante ne dox na ci diggante direction bu port autonome bu Ndakaaru ak syndicaliste ya fa ne kuréelu syndicat ya boot liggéeykat ya sagara ngay xëy seen diggante yéen cabinet moo ñu ko yëggee yéen cabinet di 24 heures xëy du ñu dégtal wàllu politique professeur Amsatou Sow Sidibé mi xam le ne mooy euh, troisième voie euh, politique euh, ci élection présidentielle yu 2024 ñetteelu xal goo xamante ne bëgg na Sénégal bu ca tënkoo rek mun a am yokkute ci fànn yu bëri professeur bi yemu ca xam le ne ci mim réew dañ fee yemalewul yoon maanaam kumba am ndey ak kumba amul ndey moo xew ci yoonub Sénégal métti luy tamit jafe-jafe ndaw ñi ne ndaw ñu bëri tiit nañu lool ci mim réew ba tax na jaaxle nañu ña ngay wutali bitim réew ngir mun fa amee koom ndax ñàkk taxawu mu gis ne nguur gi jotut a taxaw ndaw Sénégal yéen kaa bi di 24 heures taxaw yi tamit ci Pape Djibril Fall mi doon candidat ci élection présidentielle yu jëm ñaawlu na doxalinu nguuruk Macky Sall fukki at ak ñaar yoo xamante ne bilan bi daanaka de ko multiplier par zéro amul lenn loo xamante ne nguur gi def na ko ci jéego dafa laaj ci lu bare bari Eh, bu ñu sukkandikoo ci eh, pap eh, Djibril Fall yéen a bi di Le Soleil mu ñu dégtal anne scolaire gi atum ren ji 2023 2024 ubbite l'école bi soreetul ndaje mu yaatu gouvernement bi jot ko cee amal lu toll ci fukki dogal ak juróom-ñett. yoo xamante ne moo ca tukkee jëm ci nees mun a def ba ñu mun a soobu ci année scolaire gu mucc ay bi rawatina ndorteel at mi yéen a kii di direct news wutali école yi. Euh, bokk na ci amadu Ba premier ministre jot na cee diisoo ak euh, gouvernement bi xool yan dogal ak matuwaay yan te jël ngir mun a soobu ci année scolaire gu mucc ayib yéen a kii di euh, Sud Quotidien ndortel année ba ngoog ñeel année scolaire 2023 2024 nguur gi eh, mu ngi cay tàmbalee jël matuwaay fukki dogal ak juróom-ñett yoo xamante ne bëgg na ko teg ci tabal ji ngir xool naka lay sayto ndorteel ubbi tepp eh, l'école bi mu ngi ci yéen bi di eh, Sud Quotidien yéen bi di sursaane yemook école bu Sénégal di dund jafe-jafe ndax ci xayma lu toll ci ñetti téeméeri école ak fukk ak juróom yoo xamante ne daanaka kenn mënu faa dugg ndox maa leen nangu am na itamit lu toll ci juróomi téeméeri école yoo xamante daanaka amuñu mur de clôture am ci lu ëpp ñaari téeméeri école yoo xamante ne amuñu ndox am ci tamit lu ëpp ñaari juróom-ñaari téeméeri école yoo xamante ne eh, courant amuñu ko abri provisoire ak yeneen ak yeneen yene kabiri sursaane jafe-jafe yile moo tegu ci eh, table gouvernement bi ndax dina ci indi saafaraam déet mu ngi ci yenn kaa bi di euh, source a yéen kaa bi enquête ne dina jafe lool saafara mun a am ci njàng meek euh, njàngale mi ndax melokanu école bu Sénégal rawatina ci nawetu ren ji yéen kaa bi ne dañu gis ci biir école yi raglu na ndax euh, ndox mu bëri ma fa mu ngi ci yenn kaa bi di enquête yéen kabi di le quotidien xëy di ñu dégtal reportage gu yaatu gu mu jagleel littoral bi ak i tamit euh, la fay xew euh, ci wàllu suuf goo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci suñu littoral bi euh, ak i tamit jën ma ñu ne moo ca jafe lool ndax mool yu bëri ter seetu ñoog jën lu sooke ndaw ñi di fa jëlee gaalu locco ci littoral bi wutali bitim réew ngir wuti koom yenn kabi di le quotidien xëy ñu ko gëstul yéen kabi di stade mu ngi ñuy gëstul lu waaju ci Europe ak na mu nar a neexee dimanche gi ñu jëm ci ci wàllu football PSD PSG ak uh, OM ak Olympico uh, uh, Atleti ak Real ak Arsenal ak Tottenham yéen a ku yaboo sentu jongante yu nar a neex lool ni ki dimanche yéen a mu ngi ñuy dégtal Sadio Mané. Eh, ca Al Nassr gamu ne foofee ca Arabie Saoudite eh, ma ngi fay def eh, jaloore ma ngi fay dugal ay bu bu yéen a bi moo ñu ko yëggee yéen a bi suñu làmb xëy dugg ci làmb jee dañuy degtal ñetti mbër yi nga xamante ne fës nañu lool ci saison bi muy Boy Niang 2 Sa Thiès sak Franc yéen a bi moo ñu ko yëggee yema fu ñu jeexalee tënk xibaar yi ci baatu askan wi daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo